li nga xam ne def na ko ci njàngale daara ci dëkk bi xamuñ kenn ku ko ci def mën nañ ne moo jàngal dëkk bi ñëpp hmm. bàyyil ñu fi téere boo xam ne doy na sëkk walif benn téereb arab ndax lépp lu ñuy jéggaani feneen mu hmm. ngi ci biir téere boobu hmm. ñu ñaan suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te bàyyi la fi yow mi nga xam ne tey ab jotaayam te mat ko sëkk yàlla bàyyi la ci kanam njaboot gi ñu ñëw fi nag di la yëgal si bis boobu nga xam ne dañ ko war a def eh, ci ci ci safar waaye nag dañ koy waajal waajtaay wu yaatu ndax prix bi dafa international fépp la ci àddina bi mm. ndax tey Sowét ak Mauritanie ak yeneen dëkk yi nga xam ne dégg nañ ko mm. ñoom ñëpp ñu ngi ci ne yéene participer mm. ngir xam Serigne Touba li nga xam ne moom la taxawoon ci alxuraan ndax moo waxal boppam ne kanzil kitaabu wal xadis wal adab laa jamaa fiddatin wala jamaa dahab sama trésor mooy alxuraan alal ñoruma len ci keey adina yi ñoruma lu alal lul lul alquran moy sama alal tekki ne awrasani llahu kitaaballahi wa jumlatul kutbi bi hisbillahi yàllaa ma ko doonaloo kon nak mom alquran te yeen yeen fi nek jëmi Serigne Touba motax tax ñoo def len te ñewuñ ba ci yeen yëgal len ko and ko yeen xamni ci seen tol lañuy bay di ci liggey te kep kuy bay ci tolu jambur war nga waxu ba ci mom nga ne ko kat ñi ci sa tol di ci liggey tey ñaan daji seeg seen ngeerum tey ñaan it yàlla bayi leen fi ñewna and ak sëñ Abdou Karim mi nga xamne tay tey doom la ci sëñ Modou Xari di waajur ci ñun ñëpp mm. ak suñu rakk yi ku mel ne sëñ daam ak sëñ Modou ak maam Thierno ak sëñ Xaadim ak sëñ Mamadou Leen Mbay mais ak maam Serigne ja ak euh, sëñ Sàmbalo ñoom ñëpp di ay doomi ay doomi daara koo ci gis daara la yor ñun ñëpp ñoo ko ay bokk kese ñun ñëpp mm. euh, kër gi du këru bopp ndax suñu soñ bu mooy suñu lépp xam nañ ni nga demee ñun ci ak bokk ci wàll gépp xamit ni nga demee woon suñu waajur woo ci ci kol ci ci ci ci xalaaxa mm. euh, loolu ñu ngi koy gën a jokk mbàkke sëñ Moussa mii ne fi di suñu lépp di suñu sëriñ di sunu eh, du doomu bàjjan waye lu lepp japp nako liñ japp rek moy jëmi serigne sa jëmu ji lañ jàpp moo bi ñi dik ñu jaaree ci mom and ak sa doom ju bax ji di serigne Murtala sa doom ju bax ji serigne sëriñ Murtala ñu ñëw toog teew ci sa kanam di sakku sa ndigal tay sakku say ñaan ndax ñu ngi lay sant bu bax di la bañu jagal jotaay bi rek ndax eh, waxtu bi jërëjëf dama bëgg ngeen dem Touba nekkal ma fa nekkal mo fa te yaral ma alquran te yaral ma alquran wa léegi alquran nak alquran nak ñu daal liggéeyal yàlla. daal liggéeyal yàlla. ak yonent bi. ak yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla ko ci yonent bi. yàlla ba yonent bi li jox ko. mu lépp. ba deseetul amul dara lu mu dese. jël ko jébbal yàlla. jël ko yàlla nag. yàlla yàlla jël ko. yàlla jël ko. jël yoon bi. jël yoon bi sans am. waaw ah, mu jël seen ñetti jëmm yi. mu mu jël seen ñetti jëmm yi. Ah, tàppe ko. tàppe ko. muy jënd jëmm. muy jënd jëmm. sëriñ bi di yonent bi. sëriñ bi di yonent bi. yonent bi di sëriñ bi. yonent bi di sëriñ bi. yàlla nag boole leen ñëpp di yàlla. yàlla nag boole leen ñoom ñëpp yilif di yàlla. loolu la leen. loolu la leen. ba mu ko defee. ba mu ko defee. Ah. Hmm. Euh, loolu moo war a liggéey moo war a liggéeyu sëriñ bi. ci géej gi ci géej gi. waaw xoolal bi mu liggéey ci alxuraan ndax sëriñ bi li mu liggéey lépp ci alxuraan la ko liggéey. kon nag. lu ci waay di liggéey lépp lu ci waay di liggéey. boo ko yëgee boo ko yëgul. boo ko yëgul. moom ngay liggéeyal moom waaye loolu dafa yéen ñun. rawatina nag nee na ndax nee na ñun suñ suñ maam ja. daa bokk dafa bokk ak sëriñ Tuubaa lépp. wala dugg faa ko. wala bëti mën a fab lépp jaay ko. jëndee ko ak taalibe bi. jëndee ko ak taalibe bi. topp ci moom. topp ci nee na ñun itam bu ñu wëlbati ko. nekk ci lii. nekk ci lii. loolu ak cant rek. nee na loolu nag ak cant rek ci yàlla. waaye nag am na am na am na am na sëriñ Souhaïbou lu lu lu ci wax. nee na nag am na lu sëriñ Souhaïbou wax. ndax sëriñ Souhaïbou. ndax sëriñ Souhaïbou. bi nga xamante ne eh, eh, eh, ñoom yeewee na leen. nee na sëriñ Souhaïbou bi nga xamante ne sëriñ bi yeewee na leen. ci një ci njaarim. ci njaarim ci. daa wax ne ko Souhaïbou na fi toog dama ko soxla woon. dafa wax ne sëriñ Souhaïbou bu ñu na fi toog nag moom dama ko soxla woon. waaw sëriñ Souhaïbou toog. sëriñ Souhaïbou toog. nee na mu mu dem ci mu nekk. nee na mu dem ci mu nekk. ak gaalub téere nekk fa. ak gaalub téere nekk fa. ñoo mën a ko gi yóbbu ma mu ne ko soxna bu fabal gaalub téere gi yóbbu ma fee. Eh, mu yëkkati ko mu diis. nee mu yëkkati ko mu diis. mu ne ko tegal fi suuf. mu ne ko tegal fi suuf. mu ne ko da da da ngay wax bisimilah. mu ne ko da wax bisimilah. mu mu wax bisimilah moom sëriñ soxna bi. ga mel ne aw xob. na ne xob na. nee na mu dellu dem ci beneen néeg. mu wax ko loolu. mu nee na mu yëkkati si gàllankoor la waxoon. mooy mu doxal ko mu doxal lam lam ko doon doxaloo lépp. nee na ba mu noppee. mu ne ko soxaybu. mu ko xam nga lu ma jublu mu ne ko déedéet. xam nga lu ma ci jublu sëriñ soxaybu ko déedéet. mu lépp sama borom daf maa jagleel alxuraan. te jaaree ko ci yonent bi. lépp lu ci waay bëgg. ba lépp lu bëgg. ci man la am. léegi nag alxuraan. yow laa ko bëgg euh, euh, sama doom sama doom yooyu. sama doom seeni doom. nga yóbbu leen topp tool bañ mën a alxuraan. ñi nga xam ne ay doomi taalibe lañu. ñi nga xam ne ay doom ci man na la jox doom nga def ci lan ci war def. waaw lañ lañ ko defee lañ ci bëgg danaa leen ko ci bi liggéey ba toog. ñëwee ba toog. fii ci Daaru Rahman. fii ci muy kër gii. muy kër gii. ah fi dëhëroon. fi lañ dëhëroon. Euh, sëriñ Modou Moustapha moom moo ko fi daan. sëriñ Modou Moustapha moo ko fi dëhëroon. boole ko boole ko. ba lépp lu ko fekk fekk ko fi. ba lépp lu alxuraan. muy jàngale jàng. loolu loolu la fi léegi léegi. Euh, léegi. ci ci biir biir. mais léegi ci firnde. daa dëkk bi biir sëriñ bi. dafa ñëw fii ci sëriñ bi. fekk mu toog ci biti di jàng alxuraan. fekk mu toog ci biti di jàng alxuraan. moom moom moom la ñu jóg loolu ba mu ne ko ñu loolu wut. mu ne ko bëgg a tukki tukki boo xam ne. Mm, mu ne ko man de damaa bëgg tukki tukki boo xam ne. bu ma ci jógee mën naa caa defar Sénégal gépp. waxantumaa nag yoonu Mouride. yoonu Mouride. ma bëgg yow nga wax ma. ma itam bëgg nga wax ma. loo gën a bëgg ma def lan nga gën a bëgg yow sëriñ bi ma def ko. mu ko. mu ne ko. man de benn bëgg-bëgg la am. mu ne ko man de benn bëgg-bëgg rek la am. jàkk ji la am ak daara ji. laa am ak daara ji. loolu ma sëriñ Tuubaa loolu ma mu baax ma digaloon. ci laa nekk. ci laa nekk. ba léegi. ba léegi. mooy sama mébét. mu mooy sama mébét mooy sama mébét. mu ne ko jàkk ji nag. mu ne ko jàkk ji nag. sàkkitu xat nee na sàkkitu xat la doon ci jamono yooyu. waaw nga xam ne euh, doo ñoo daje di ko sàkket. ndax booba dong yi ñoo daan daje di ko sàkket. waaye moo koy moo koy jiite. waaw de ba mu defee noonu. mu nee na ba mu defee noonu. mu ne ko ba tey maa ngi ci. mu ne ko nag maa ngi ci. daara ji. ne ko daara ji. boo liggéey da nga ko xool ay ay nee na boo jógee na nga ko dem xool ko boobu ay sàkket sàkketi gattax la rek moom daara ji. waaw melul nen. boobu melagul nen. waaw ne ko bu soob yàlla bu mu ne ko bu soob yàlla su ma dugg jógee ji tukki ma. daara ji na ko bëggee ji na ko bëggee danaa ko defee noonu mbàcc. Ah, ah, ah, jàkk ji nag. jàkk ji nag. mu ne gees jóge geesu ne Ousmane. suba. suba. lu war ci jàkk ji ko daal def. suba lu war jàkk ji ko daal di def. nee ba asamaan seete. ñu ñu Ousmane indi daal di indi ciment. ak fer. ak fer. Ah, ak bant. ak bant. ak yi ñuy liggéey. ak yi ñuy liggéey yëpp. sëñ bi daal di koy rëdd boppam wax ko na mu ko bëggee. mu tàmbali ko àggale ko. daal di koy tàmbali àggale ko. ba waxtu woowu. mu ne ko. jàpp eh, daara yi mu diggee. mu ne ko daara ji nag bu ma ñëwee. Eh, na nga bëgg danaa ko ne def. na nga bëgg rek danaa ko ne def. nee na nee na mu ne ko. nee na mu ne ko. Eh, fi ñu doon jàngee. fi ñu doon jàngee. muy man. muy man. muy Abdou Ahad. muy Serigne Abdoul Ahad. muy Serigne Salihu. muy Serigne Salihu. muy Serigne Abdou Samad. muy Serigne Abdou Samad. ñu boole lañ boole woon ak Serigne Amsatu. mu defoon mu defoon am am ci ñànk. mu defal ñu am néeg ci daara jële ca ñànk. fan lañ doon jàngee. fa bu sëriñ am sëtu ñëwee. am sëtu ñëwee. dox ak tànkam ba àgg foofu. dox ak tànkam ba àgg si daara ja. Eh, eh, teg fa rakkam. mu di leen jàngal. mu di leen jàngal. ne foofu laa bëgg daara ji nag laa bëgg daara ji fa nekkoon ñu yeesalal ma ko. mu ne ko na nga ko bëggee laa koy defee. mu ne ko na ko bëggee laa koy defee Mbacke. moom ba mu demee. waaw mu ne ko la mu ne ko garab gi mu ne lii ak niim la. niim gi mu ne ko yu toll. mu ne ko niim gi daa bëgg ni xob yi niimaa gi toll mu andi fi milliards yu mu ne ko waaw mu ne ko waxuma waaw ne ko da nga rek waaye danga koy am. loolu amoon. nee loolu amoon. waaw man yi daa mu ne ko su ma ñëwee daara ji danaa ko liggéey. ba mu demee mu wax ko sëriñ Abdul Ahad. sëñ Abdoulaye ne ko na nga ko bëggee na lay amee. sëñ Abdoulaye ne ko na nga ko bëggee na lay amee. daal di woo waa Kadas. daal di woo waa Kadas nag. ñu ñu liggéey mu ne ko def leen ko sëñ bi ne mu ko bëggee ngeen ngeen def ko ne. Mm. ku ku ku ku dëkk ku ko dëkk. Mm. na toxu ba sëñ bi am lu bëgg ma ko woon. waaw mu dikk mu ne ko boo demee na ko sëñ bi bëggee na nga ko defee noonu képp ku fa dëkk na toxu ba sëñ bi am na bëgg mën a. waaw loolu loolu. léegi mu defal ko ko defal ko ci ay kayit. bi mu noppee. bi mu noppee. ñu defal ko plan. bi bi Juga dikkee. ñëwee. sëñ Abdoulaye jébal ko plan bi. ko plan bi. bi mu ko jébalee plan ko jébalee plan bi ba noppi. mu ne ko mu ko daal na ko daal di defar. non moom mu daal mu daal di koy tàmbali tabax ko tabax yi ci njëkk. waaw ba ba tabax yooyu àgg. ba sëñ bi wax ne. sëñ bi wax ne. boo xamoon ne nii la dañ koy yokkaat. su ma xamoon ne nii lay demee dañ koy yokkaat. su sëñ bi ne ko kenn amu fi dara waxal sa bëgg sëñ bi ne ko fii kenn amu fi dara waxal li nga bëgg rek. mu wax ko ñu yokkaat ko. mu wax ko ñu yokkaat ko. loolu loolu loolu bi jaarale ak sëriñ Touba. waaw foofii la sëriñ Abdou Lahad sëriñ Touba ak sëriñ Abdou Lahad jaar ak sëriñ bi. Euh, euh, université bi. université bi. turu sëriñ Sooy boo ci nekk. boo ci nekk. xalaatam ak bëgg-bëgg moo ci nekk. xalaatam ak bëgg-bëgg moo ci nekk. waaye nag ñi ñi fi wutu sëriñ Abdou Lahad. waaye ñi fi wutu sëriñ Abdou Lahad. du seenub cër. da dul woon xañ ne seenub cër. waaw euh, ki ki mu doon doon ab cëram. mooy mooy sëñ Muntaxa. nee mooy sëñ waaw ndax bu liggéeyam. nee ndax bi mu ñëwee. daa wax dafa wax ne. ab liggéeyam. ci ci ci bëggu sëriñ bi rek jëm. ci bëggub sëriñ bi rek la la jëm. ndax sëñ la bëggoon. sëriñ Tuubaa moom alxuraan rek la bëggoon. ak ak diine. ak diine. kon nag ginnaaw sëriñ sëriñ sëriñ tàmbali na nag tàmbali woon na ko. moo man dinaa ko àggale moom sëñ Modou Mountakha moo wax loolu. loolu moo waral université bi. bu rëy bii ngeen di gis. waaw. fekk na. loolu fekk na. Euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Sonia bu bu dafa xaw a gëj a gisante ak sëriñ Basiru. lu yàgg. luy xaw a yàgg. waa ñu ne ko ma nga sëñ Basiru fu mu ne mu ñu ne ko ma nga tiib. mu abbu oto dem seeti ko. mu abbu dem seeti ko foofu. mu ne ba mu ba mu corné ne ko. ne. ñu ñu ñu ñu bu la yoon. nee na ba mu àggee tiib dafa corné ba ba sëriñ bi yëkku génn ne ana kooku ñu ne ko sëriñ sooy bu la. mu ne a ne ko. Hmm. sooy bi yow ko. bëgg laa gis rek namm la dangay sama lépp. waaw mu ne ko soxna bu yow lan ngay wut fii mu ne ko dama laa namm rek bëgg laa gis dangay sama lépp nag. waaw loo mu ne ko am. mu ne ko. yow war la waroo seeti kenn. nee na mu ne ko yow sëriñ soxna bu waroo seeti kenn. ndax lan suñu bàyyi digaloon. ndax lan suñu bàyyi digaloon. yaa yaa ca ne. yaa ne. noonu ñun kenn ku nekk nekkoo ci. mu ne ko ñun ñëpp kenn ku nekk nekkoo ci yow yaa ci ne. kon nag bul bul demati fenn. nee na kon nag bul demati fenn. daal di ne gees ana Muntaxa. mu daal di ne gees ne ana Muntaxa. mu ne ko maa ngi mu ne mu ne mu yëkkati xaalis jox ko ne ko jébul jébul jébulu. mu daal di yëkkati jox ko ab ab lim jox ko ne ko demal nga jébulu ci sëñ sëñ Soxna bu. waaw mu mu mu jébul fi kanamam. mu daal di jébulu ci kanam sëñ Soxna bu. mu ne ko boo ma soxlaatee. mu ne ko boo ma soxlaatee. Euh, Muntaxa mooy sa buntu ci man. mu ne ko Muntaxa mii mooy sa buntu ci man. waaw mooy bu ma la soxlaa mooy ko su ma la soxlaa it mooy sama bunt ci yow. noonu la ko jëbal suñu muntaxaa. noonu la ko noonu la ko jëbal suñu jëbalee suñu muntaxaa. loolu la jàpp. la jàpp. kon nag kon bu ngeen wëlbatikoo. kon na bu ñu lii am. lii am. faaw ñu mu leeral na ko nag. waaw daara ji moom la ko yàlla jagleel. ma na daara moom la ko yàlla jagleel. maa ko tabax ba mu toll fee mu toll. nee na moom mii moo ko tabax ba mu toll fee mu toll. te bàyyeegul ko. nee bàyyeegu ko. fii jàkk ji nekkoon. nee na fii jàkk ji nekkoon. bi bi ñu yëkkatee sëñ bi. bi ñu yëkkatee sëñ ci jumaa ji. yóbbu ko ci ba tabax jumaa ji. ba fi jàkk ji nekkoon. fi jàkk ji nekkoon. dama ko bëgg a dama koy tàmbalee liggéey. nee na mi ngi koy tàmbalee liggéey. dañ ko dama ko bëgg a def majaalis. nee da ko bëgg a def majaalis. boo xam ne. boo xam ne ku jógee ci daara ji. boo xam ne ku jógee ci daara ji. man alxuraan man alxuraan. doo wuti benn daara da nga daal dugg ci biir daal dugg ci biir. waaw jàng xam-xam ba li boo jógee ci daara ji mokkal alxuraan boo njëkkee da ngay daal di sumi si daal rek dugg ci biir jàng fa xam-xam bala nga war a xam lépp nga xam. waaw loolu moo tax moom ma def ko. nee loolu war a loolu waral mu di ko yeesalaat. bu bu bu ngeen dee ba seet ko léegi. Mhm, nee na bu danañ xam lam fa def. kenn kenn nag la ko sasoon. nee kenn nag la ko sasoon. waaw muy waa kër Ndiouga waa kër Ndiouga Kébé waaye boo mu ne waaye ba mu ko sasee. ka ñu wax ah, kii Moustapha Moustapha. muy Moustapha. ka ñu wax Moustapha Kébé. moo ne moom ku ci fekk dana ko tabax ku ci fekkul dana ko. nee na moom ku ko ci fekk moom Moustapha dana ko tabax ku ko ci fekkul dana ko tabax moom. kenn rek fekku ci. nee na kenn fekk ko ci nag. waaw boobu ma nga ca. nee na ma nga nag bu ñu gisee day waaw nee na nag defe naa bu nee ba gis ko danay xam ne moom man ma ngi ci liggéeyal sëriñ bi. ba ca ba ca des. nee na ba ca des. daara ji dafa xaw a daara ji dafa xaw a xat. ni ni ko sëñ bi tabaxee woon. dong yu bari yi. ci dong yu bari yi fi mu. léegi man li ma xalaatoon mu nga ne ci laa tàmbali. na li mu xalaatoon ba tàmbali ko. moo di dëkk mooy dëkk bu ne. dafay ak daara. dafay def kër ak daara. donc ya nekk foofa. ñu andi leen leen fii. ñu nekk fii ñu yóbbu leen ko tàmbali tàmbali na ko Ngaye. ak Pire. ak Pire. waaw ak Mbo loolu bëgg ñoo ngi foofu yëpp ñoo ngi koy tabax.